ba nii mu wootee nii mu wootee yónnee woolu ma noonu yëkkati teraanga ju rëy rëy ne ma maa ko def ngir Cheikhul Khadim mi ngay ubbee nga yóbbul ko ci jigéen ñi ca kaso ba kon su woote waatee ren mu tombe waat war naa koo sant ci kanamu ñëpp ballay sa yàgg fi loolu te moo du euh, awa balla euh, Cheikh awa balla awa balla ku mbëj wul maam jeng warax mbëj ayta yàlla sax bismillah jërëjëf alaaj pap te ñu tàmbali waxtaan wi nag di gërëm cheikh bi bu baax a baax euh, Cheikh Modou Kara ñaanal ko yàlla na ko yàlla yokk dëgëral. amiin amiin moom réew mi ñëpp dañu koy bégee euh, tey nag ñu war a waxtaanee sang bu tedd bi Serigne Gana hmm. ñu dugg ci waxtaan wi ndax nit pour nga ko il faut xam ko ba hmm. te nit mën nga ko sopp nii bëgg ko te xamoo ko dëgg-dëgg. Hmm. tey nag fi ñuy njëkkee ak yow avant ñuy dugg ci yeneen laaj yi sëñ Maam Mor dina ñëw sëñ Mouhamed ak sunu jigéen ñi kenn ku ci ne bëgg am question boo laaj waaye question yi nga xam ne bind naa ko bari na rawatina sëñ Maam fi ñu njëkkee man wa Cheikhul Khadim radiyallahu anhu kan mooy Serigne Bamba dëgg pour ñu xam ko pour waxuma ñu gis ko ci photo nii hmm. wala ñu gis ko di ko dégg nii wala wala nga judd ne man murit laa wala dégg Serigne Touba dégg njabootam fi mu jaar ñu gën bëgg xam dëgg dëgg yi Cheikhuna Ahmadul Khadim pour njaboot gi nga xam ni mu ngi koy dégg am lu ñu desee xam ci moom kan mooy Serigne Touba radiyallahu anhu macha allah jërëjëf Oustaz noo ngi jaajëfal sëñ Mouhamadou Kara Nourayni mhm. di ko ñaanal yàlla yàlla jàppale ko taxawu ko bu baax. amiin ci bëgg gi mu bëgg sëñ bi. Mhm. ak fi ko teg ak bàyyi xel gi muy bàyyi xel sëriñ bi ak saytu mbiram yàlla na ko yàlla jàppale. amiin sëriñ Pape laaj nga laaj bu bu yéeme bu rëy bu bu muy kan mooy sëriñ Touba mhm. euh, ci ki may déglu mu baal ma ma leeral ko ci li nga xam ne ñaari fànn lay doon. te bu ci nekk nit ki mën cee teg loxo. Mhm. Euh, bu dee kan mooy Serigne Touba bu dee taarifal ko mën nga ne Serigne Touba Ahmadou Bamba la tudd. Mhm. Ahmadou Bamba di doomi Serigne Mor Anta ak soxna Jaaratullahi ma Mariama Bousso. Mhm. ñi nga xam ne ku ne xam na ko ak taxawaayam. gane jamono Mbacke Bawal. 1852 wala 53 ba 55 ndax lay sa taarixu kamakaan mhm. mooy ki nga xam ne moo sanc Daaru Salaam ci desas sanc Touba ci wesas mhm. dem ci géej gi jëy sas loolu mooy loolu mooy ki sanc Touba ci atum ci Daaru Salaam ci 1304 mhm. ci hijriya moom la ko sanc war a doon 1886 wala 84 sanc Touba ci atum wases de 1306 dem ci géej gi 1313 mooy Ahmadou Bamba kooku mooy Ahmadou Bamba dafa am ay tur yu bari Ahmadou Bamba xaadim rasul Abdullahi Abdul Xadim Ahmadou Bamba nag mooy takk ndeer bi Ahmadou Bamba mooy takk ndeer bi moom lañ naan doomi sëñ Mor de Sëli di way magam di woy rakkam diw la bokkal. xadim rasul mooy mession bi. mission bi nga xam ne moom mooy jëmm ji. Mhm. Abdullahi mooy xel Abdul Xadim mooy ruux Abdul Xadim la ko yàlla tudde Abdul Xadim mooy ki kimle al ibadatu wal xidma jaamu yàlla liggéey rasulaay ba wax ne sammayta ni xat an bi abdikal xadim yaa man yaquudu li basharatin tadum mhm. yàlla ma tudde Abdul Xadim Abdul Xadim moomu ngir nga agsi fa da ngay ñëw ci bu njëkk bi ma la wax léegi muy xadim rasul xadim rasul. daraja la joo xam ne tur la woo xam ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko tànnal mm-hmm. ndax yonent bi alayhi salaatu salaam ku bari ay ay xuddaam la ñu koy liggéeyal mm-hmm. bokk na ci ñi ca gën a ràññee ku ñu wax Anas ibnu Malik am na ku ñu wax Xasan ibnu Saabit am na ku ñu wax Kaab ibnu Zuhayr ci mm-hmm. ñi ci gën a siiw gën cee ràññeeku moom nag bi mu jógee dafa am benn yitte bu muy liggéeyal alayhi salaatu wasalaam ba tey bokk na ci turam yi ñu koy wooye muy xaddiim rasul waaye teewul bee lay raas muy abdullahi muy ko féete woo jaamu borom nga xam ne bi mu feeñee jamono ci 1852 53 ba 1927 musu fee faat waxtu musu fee tooñ musu fee mooy yàlla musu foo tooñ nit musu fayantoo ku ko tooñ baal na la loolu benn la ci daraja yooyu nga xam ne amee na ko mooy ki nga xam ne it bu ma la waxee musul tiim xam ne juróom-ñaar fukki at ak juróom nga dund ko mosoo tiim amul benn bis bu mës a tiim te amuloon jot ndax li tàmbalee ci ñeent fukki atam ba ci juróom-ñaar fukki atam nga xam ne diiru fan at ak ñett ci loxoy nasaraan bi la nekk te monsieur su jëli sëñ Moussa Ganaan monsieur fu la jëf ba am fat waxtu baa mu tiim du juuyoo ak boroomam baa mu xëy fàtte waxtu ba kon mosuñu ko mën a teg dara wala ñu jëf ko ci moom ba tax mu mën a faat waxtu wala mu fàtte ak njabootam mooy koo xam ne it li ma la waxaat léegi mu nga Abdoulahi mi nga xam ne wéetoo jaamu boroom subhaanahu wa taala nekkin Abdul Xadim moo tax mu wax ne man maay jaamu yàlla biy liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne kon jaamu borom bi subhanahu wa taala ak liggéeyal yonent bi alayhi salatu salaam mooy ki nga xam ne dafa ñëw ngir tajdiid tajdiid mooy yeesal sunu si yonent bi alayhi salatu wasalaam nga xam ne suñu borom daf koo tànn ngir mu ñëw yeesal li fi alayhi salatu wasalaam bàyyi woon mm-hmm, mm-hmm. ndax bi muy ñëw dafa wax ne dafa fekk sunu si yonent bi alayhi salatu wasalaam rab yoonu gaa yu baax yi farga yi ngir topp gi nit ñi topp bidaa ak caaxaan mhm. mu ñëw nag wax ne lil Mustafa nawaytuma yujaddidu sunnatahul xara wa inni ahmadu mhm. damaa ñëw man ngir fas yéene yeesal sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam bu ma kenn jorte ba kenn jàppee ma ku dul kuy liggéeyal alayhi salatu wasalaam ndax ku ma jorte ku dul kuy liggéeyal yonente bi koy liggéeyal comme bi alayhi salatu wasalaam tànne mhm. koo xam ne nekk gi ma nekk di ko liggéeyal naqari na la ki koy liggéeyal comme ni mu ñëw nag ngir doon nit yonent bi alayhi salaatu wa salaam nga xam ne mooy dafa nekk dafa doon yonent bi doon goo xam ni doon biir la doon koy doon biti lakinahu warisal muxtaara fi amalin wa fi maqaalin wa fi xuluqin wa fi siyari mhm. dafa doon yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci jëmm muy doxiin ak jëf doon na ko ci jikko alayhi salatu salaam nga xam ne amul genn wuute moom sëriñ bi ak yonent bi alayhi salatu salaam li sëñ bay jaxat naan ko dox yi ne ma yow sa dox yi wax yi ne ma yow sa wax yi jëf yi ne yow sa jëf yi ngiram nga teg sa tànk ba mhm. nga xam ne amul benn wuute loolu seen sëriñ Tuubaa di ko def baa mu di ko digle mooy li yonent bi alayhi salatu salaam doon def ak li yonent bi alayhi salatu salaam doon digle mooy ki nga xam ne it moom Seexu Xadim mooy ki ñuy tuddee karaamatu mooy tedd ngay nit ku ñuul sagub nit ku ñuul mooy Cheikh Amadou Bamba moom la wala karamatu wala faqr wala jamaal bii azwadul maadum nga xam ne mooy ki nga xam ne bu tekkoon ne nit ku ñuul am na lu muy sagoo di ko tuuteeroo ci lislaam day jël Serigne Touba ndax sagam ci melo lu tax mhm. mu ne mooy koo xam ne mooy njiit li nga xam ne bu fekkoon ne amul benn taxawaay bi ci diine lislaam wala wenn melo yi day mel ni lislaam du am ndam lii mu am te wasaaroo ci fi ñuy tudde asawu jan ci nit ku ñuul mhm. mooy ki nga xam ne it lam yadri insun mislahu fi ma xawa wal kullu xaarali shaynihi l maktub mooy ko xam ne kenn mës la xam ku mel ni moom nga xam ne mhm. gi man ma dem nga fu ne mhm. dégg nga lu ne waaye nopp mosul dégg ku mel ni sëñ Tuubaa nga xam ne mosul kenn benn nopp lu ne bu nopp ubbeeku ubbeeku mosul mhm. dégg ci àdduna ku mel ni moom mu di koo xam ne kon dafa ñëw ngir yeesal sunna si yonent bi alayhi salaam bu dee ci côté bee lii ma la wax mooy ki bokk ñi bokk ñi mel nii bu dee ci côté bii nag mooy ki ñëw taxaw ngir yeesal sunna si yonent bi ne nazaani baaxil xadim allamahum bi anni abdul xadim ji yàlla ci boppam moo ma sepp ci nit ñi ma fee xamal leen ni kii mooy al abdul xadim mooy ki boole al ibadatu wal xidma mhm. nga xam ne fi ne li gën a siiw ci ay turam mooy abdullahi wa xadim mooy ki wéetewoo féetewoo jaamu yàlla borom bi subhanahu wa taala ak tagg yonente bi alayhi salatu salaam wala lëggéeyal yonente bi alayhi salatu salaam ci melo war a mën a doon ki nga xam ne it guddeem bëccëgam léppam alayhi salatu salaam la ko jox lifaali wa ibuxaa'i wa fawsi bila aman bi kaw ni xadiimal Mustafa te tabayyan mhm. samay guddi samay bëccëg samay yëngu sama dal mi ngi feeñ ci nekk gi ma nekk xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loolu lan la ci wane it Serigne Touba mooy ki nga xam ne euh, sunu borom dafa bari kawteef maanaam dafa nekk koo xam ne melo wi ko yàlla jagleel ak dox yi ni ñuy dox lépp day dellu ci biir lislaam nga xam ne amul benn tànkam boo xam ne génn na lu ñu tudde sharia wala benn tànkam boo xam ne génn na lu wóoteeg laa lii salaa salaam andi woon banaytu taatiya bi ittibaa bi dikri wa sunnati walla ijmaa sama mbir ci ñett laa ko teg lu may jëf alquran lay doon addis yonente bi alayhi salatu wasalam al ijma lu borom xam-xam yi saxal ba ba ba ba necca ca yooyu yàlla nekk waxtu wu nekk. moo sëñ Touba mooy koo xam ne it. ci ci ci melaw moom la ñuy wax sëñ Touba nga xam ne baatu baatu sëñ Touba nga xam ne. moom gi mu moom Touba ci baatu woyofal nii rek ci nit kiy déglu nga xam ne ku bari ay tur la nga xam ne borom Touba xaadimu rasul si Amadou Bamba nga xam ne benn benn benn tur bu nekk daraja la fi ne tey boo doon indi xaadimu rasul tabaxaat yi ngay jéggi pour nekk ca da ngay nekk alxillu wal xibb day nekk xaritu yonente bi salaahu salaam nekk soppe bi yonente bi alayhi salatu salaam mhm. nekk xalifaam donn ko zahir donn ko ci baatin mhm. bu boobaa nag lu neex yonente bi mhm. moo lay neex lu la neex mooy neex yonente bi te defe naa egg na ci ginjool aqsamtu billahi anni linnabi abada xillun wa xibbun wa ma abahu yaba giñ naa ci yàlla maay xaritu rasulullah sallallahu alayhi soppeem lépp lu ma neex moo neex alayhi salatu wasalam lépp lu ma naqari moo naqari alayhi salatu wasalam loolu lenn la ci sëñ Pape euh, sëñ Gana loolu lenn la ci mais euh, yaa ngi ñu gën a xam dëgg-dëgg Cheikh El Khadim ndax nit mënoo tëb rek nga nekk mag am na foo jaar euh, nu baal ma ci waxin bi ci wàllu ci zahir boog ci zahir ndax yonent yi sax jaar nañu ci ndaw kenn ku ci ne da nekk ndaw màgg am foo jaar ci jaarin mais Cheikhul Khadim radiyallahu anhu xam-xamam ci fi mu jaar ci wàllu njàng ndax waxuma wilaaya ga li ko yàlla def ak fi ko yàlla mooñee ak liggéey gi mu liggéeyal borom bi subhanahu wa taala liggéeyal ko yonent bi alayhi salatu wasalaam mais am na fu mu jaar euh, moom Cheikhul Khadim ci kër way juróom Mame Mor Anta Saly ba keroog muy sos daara ci jaarin boobu ci wàllu ndaw ba keroog euh, lii di ko dikkal moom kon ba tey yaa ngi ci première question mi ngi ci Cheikhul beneen façon boobu nee naa la mooy doomi sëñ Mor Anta Sali mm-hmm. sëñ Mor Anta Sali euh, mooy xaadi Lat Joor di doomi maam Balla Aïcha maam Balla Aïcha di doomi maam Maaram daan wax ne boo leen agsi ci maam Maaram mën ngeen cee mooy seen àddinaam mm-hmm. te boo toppee silsila bi day dem ba ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam ak soxna Jaaratullah mm-hmm. mi nga xam ne euh, kenn ku ne xam na lim dund ci àdduna lim gàtte ñu fanweer ak ñett ak liggéey bu réy bi nga xam ne moom la liggéey bi mu tollee ci jàng dal ci jàng. Mhm. Mbàkke la beneen jamono. bi mu tollee ci dal jàng way juróom moo ko jàngal. mu sëñ Mor Anta Sali moo ko jàngal dañ moo ko dalal alxuraan mhm. nijaayam sëriñ bu soobee jàngal ko mhm. ak Samba Tukulóor Ka sama maam la Samba Tukulóor Ka ñooñu ñoo jàngal ma jur bi ah, waaw ñooñu ñoo jàngal Seexu Xadim sëñ Mor Anta Sali way juróom sëriñ bu soobee nijaayam mi bokkoo soxna jaara lépp ak jëmmi Samba Tukulóor Ka way juróom yar ko bokk na ci melo yooyu soxna jaaratullah sëriñ Bachiru Mbakke dafa nekk ci minan bu baaxil xadim hmm. wax ne soxna jaara kaanat turabbi awlaadaha bil muruati wa tahaarati wa diin hmm. daan yar njabootam ci diine ak mbañu mbus nga ci teelu yar googu sëriñ Bachiru nee na sëñ soxna jaara da daan wax sëñ Tuuba naan ko min da abi saalihin xiyaamu lay gaa yu baax yi li ñu leen naa woon mooy taxaw guddi di naafila loola la sëñ tubaa teel a dégg ba bu guddi masaa jot boobu sëñ bi dalagul jàng ci waxtu juróom-ñaari atam matut ci lay fanaan ci ëttib ba fajar di naafila moom Serigne Touba loolu Ibnu Mualla indi na ko saada tiflan wa asruhu laysa fihi man yusalli bi sabati yaa nga may wax ci ndaw Cheikh Khadim nga xam ne ci juróom-ñaari at booba dalagul jàng juróom-ñaari atam ci zahir dégg gi mu dégg soxna jaara naan gaa ñu baax ji guddi daaw ñu tëdd nelaw la sëñ bi teel a dégg ba bu guddi jotee bu nit ñi tëddee di nelaw mu taxaw ci ëtt bi moom sëñ bi na temm ba fajar di di nga la daan def ca booba juróom-ñaari ci lay war a toll. Hmm. bi ñu jógee Mbacke dañuy ñëw dëkk bu ñuy wax Nja mooy xuru Mbacke lu ëpp ci ndawu sëñ bi ci zahir foofu la ku tedd ki dafa Cheikhul Khadim. Hmm. ginnaaw bi ñu jógee Nja ñu nga demoon dëkk bu ñuy wax Saalum te moo di fii di Poroxante nga xam ne fi la soxna Jaaratullaahi Mariama Bousso euh, wàccee euh, ab liggéey ñu denc ko foofu ci Poroxaan mu takkoo koy juróom nga xam ne du tàggoog moom waxtu wu nekk. Hmm. nga xam ne ci waxtu ndaw bi ñu am fukki at ki jëkk a tagg Serigne Touba nga xam ne moo ko jëkk a way moom la ñuy wax sëñ Mamar Kan Dingiraay mhm. sëñ Mamar Kan Dingiraay jiraatal na Cheikh Omar Foutiyou Tall te Cheikh Omar Foutiyou Tall moo jëkk a annoncé moom ne kii moom jamono Ahmadou Bamba lay doon moom Cheikh Omar Foutiyou Tall moo jëkk a yëg ñëw Serigne Touba ba tax mu ñëw Mbacke boo ñëwee Mbacke boo ñëwee da nga fekk téere bu ñu tudd tudde ko dëkkuk Cheikh Omar Foutiyou Tall Mbacke mhm. Cheikh Omar Foutiyou Tall moo bi mu demee Mbacke def ay xalawaatam suñ borom won ko leeru Touba bi mu laajee kuy moom Touba suñ borom da ko xamal ne kii moom Touba mooy moom jamono mooy Ahmadou Bamba <laughs> kere bi mu ñëwee gis sëñ Mor Sali dana ko yow yaay doon bàyyi kii moom jamono bi mu gisee soxna jaara dana ko yow mi yaay doon bàyyi way juru kii moom jamono sëñ Mamar Kan moom nag bu ñuy tagg sëñ bi ci boobu fukki at ak ñett la toll ci ndawam daf koy tagg ci moom it ci melo yooyu mm-hmm. innal xuruna bina sunya asimatihim fii rahatayka maa liyan xadu maa hada la ahmada bamba kaana waliduhu baxrul ulumi namirul ma'i mawruda ku woy loolu sëñ Mamar Kan Dingaraay moo ko woy moo ko woy sëñ bi ko woy ñaari at la fukki at ak ñett la sëñ bi présent waaw mu ne ko yàlla dajale na rooy bindeef yëpp innal xuruuna bina sunya azimatihim mhm. azimatihim fii raxatayik fii raxatayik waaw maanaam mbooleem nosib jaam ñi yàlla nos na ko bënn seeni bakkan takk ci buum teg ko sa ñaari teen gi yow Ahmadou Bamba mhm. daana boo xamul ki ma lay wax nag hada la Ahmadou Bamba kaana waaliduhu baxru lawlun namiril ma'i mawruda bàyyam mooy géeju xam-xam ndax sëñ Mor Anta Sali mhm. ku ne xamoon na ne université bi gënoon a rëy ci jamonoom moo ko yoroon ñu bare bari jàngee nañ ci daal sëñ Mor Anta Sali loolu ci fukki atam ak ñett ci lay ci lay toll nga xam ne biir fanweeri atam nga xam ne man fa jógee ñëw dëkk bu ñuy wax Pataar ndax booy juróom dafa nekkoon xaadi Lat Joor di ko atteel mhm. moo tax du tàggoog moom fu mu jëm sëñ Bachir nee na biir fanweeri at sëñ Tuubaa du taxaw dara du taxaw du taxawal dara dafa topp ci ginnaaw way juróom rek nekk ci ndigalam waaye mu teel a ci xam-xam ndax ci biir jamonoy way juróom biir daara ji Serigne Touba waxuma la dem bay jàngale ba nit ñi di ko jàngaloo waaye yegg na ci biir daara ji di taalif téere yoo xam ne sëñ Mor da koy jàngale ci biir njabootam. bi mooy taalif téere yi. bi moo koy taalif ci wax. ñu koy jàngale ci koy jàngale ci biir daara ji. nga xam ne booba demagul sax ci benn benn as bi wóoteegul yoon wi booba ala arbain addamanta sama ni siba. Mhm. alal ilmi wa taalim wa zuhdi wa nuski. Mhm. mu féete jàng ak jàngale ak dëdd adduna ak jaamu borom bi subhanahu wa waaye mu nekkoon koo xam ne ci waxtu ndaw mi ñim jamonoon teel dafa teel a yéeme yar boobu ko way juróom doon yar sëñ Mor Anta xam nga Baye Xaadima Jaxate Kala nga xam ne ñi jàng ñi réew mi nekkoon na ñi ci raw ci ci aarut ni mu meloon waaw Baye Xaadi waaw